laaj gi di daw ba léegi ci bàyyib nabu Leye liberté buñ ko may liberté provisoire ak sànq li nga bëggoon a rebondir foofu ñu boucler la boucle. waa man de am na benn jour toog naa fii. oui ma ne sama bopp bii dugal ci ne nabu Leye dafa dafa bokk ci ñi rey waa ji mënut a dugg sama bopp. waaw waxoon nga ko. damay féeraat waxaat ko fi maanaam sama bopp bii loolu mënu cee dugg. Mm-hmm. xam nga lu tax. fooguma ko ko yaakaaruma ko njortuma ko ci moom sama xel félatul benn yoon dem ci moom. Mm-hmm. parce que intérêt bu mu ci man bu mu ci am laay laaj man intérêt la ci am mooy benn leneen lu ci laale yooyu yëpp mais maanaam rey gi moom mënuma ko nangu waaye nag damay gis ñu bari tamit kalaasu sëriñ gi ñoom ñoo ñemee yàlla lu ñëw ñu wax ci dañu ngi naan juge bi da ko waroon a diglu au fond dooga loolu man maanaam loolu loolu amul fenn sa classe gi laa wax sa génération bi seen groupe boobu hmm. les malfaiteurs là loolu amul fenn fu droit amul fenn ci loi Sénégal bu tënk juge ne ko tant que dégluwoo kii au fond mënoo koo may liberté provisoire loolu ku la ko wax du dëgg amul fenn fenn fenn. mais ñi ngay wax est-ce que du transparence bi ngay laaj. la ñuy xaaral ah, transparence d'accord. oui juge d'instruction day instruire à charge. et à décharge. waaw mais bu gisee lu la décharge du la bàyyi nga ñibbi ban intérêt la am di la téye nag maanaam moom yéen ñoom dañoo. jàpp exception la. waa léegi xaaral. Hmm. ñoom léegi pa c'est-à-dire que man ñenn ñi ma leen déggee c'est-à-dire xale bu jigéen bi bu defee bu deful yëpp dañ ko war a téye. Hmm, hmm. mais juge d'instruction bi moo la ëpp information. policiers yi bu ñu ba indil ko bu ko neexee teg ko fële defaatal enquête boppam mais bu defaatee enquête xool ne kii man téye ko fa vraiment dama koy tardel te moom du ci dara vraiment est-ce que duma ko bàyyi ba keroog may soxla àtte bi mais nag di ñu kut ko kut rek waruñu ko libéré Boffa Bayotte liñ ci jàppoon kenn xamul nu mu toll dafa yaakaar naa yéen a ngi koy fàttaliku Boffa Bayotte. Euh, bi euh, problème bi amul fële. Casamance boobu mooy problème Rewmi mais xaj yi bàyyi nañ leen parce que juge bi amul intérêt di la téye amul xoolal yàgg nga fa yàggoo fa moom bu gisee élément bu la déchargé rek automatiquement da lay déchargé vrai du fa nekk sax la ñaat avocat yi ku la xam ndax dañoo dem wuti ay information yu indil juge bi ba convaincre ko hmm. ay avocat la am bi yuy def seen liggéey. waaw mais man bu ma gisee acharnement bi ak nit ñi ni ñu dalee ci kaw ndaw si wax dëgg yàlla man dama ne ndaw si bu fekkee dafa def juge amu ci benn intérêt pour bàyyi ko ndax juróom ñaata lañu woon juróom-ñaar. Hmm. ana ña ca des. lu tax hmm. bàyyiwu leen bu dee bàyyi bàyyi rek kon est-ce que doon dafa jékki-jékki tiit rek bàyyi leen. déedéet jàpp ne na bu lee dafa am loxo bu gudd moo tax. non ñu ko ëpp loxo ngi fi ci kaso bi tëdd kenn bawu leen maa ngi déggaat ñu naan waaw juge bi à tout moment mën na kiiwaat tant que amutaat fee bu bees. Hmm. maanaam un feu nouveau ñu versé ko ci procureur procureur saisiraat ko ndaw si du delluwaat. ci li juge bi sukkandiku daal ba libéré ko juge bi xam na ko te juge bi gënuñu koo gën gëm yàlla. dafa prêté woon serment nañu rafetal maanaam nit chaque jour que euh, euh, kii sax dinañ ci d'accord tribunal bala laa condamné danaan présumé. waaw ba bi mu lay danaan présumé ba bii ci biir àtte bi danaan présumé ba keroog àtte bi. pare bañ lay déclaré coupable coupable. Hmm. kon justice moom exception bi mooy tëj. tëj bu la tëjee rek def na loo xam ne moom gënalu ko. d'accord te sax àtte nag. li gën ci nit ki la ñuy àtte li gën gën oyof ci moom daan boo gis rek moo gën oyof ci waa ji. Hmm. waaw lu mu lu pen ba rëy rëy rëy. maanaam liberté bi dañ koy jiital moom. ah liberté bi la ñuy jiital loolu la ñuy jiital fexe daal noo libre la ñuy jiital que tëj. justice ba amee lu ko gënal du la tëj mais bu demee ba tëj la rek. loolu la naan exception. Hmm. mais bu heure bu gisee déggoo relax et bénéfice du doute. mais déggoo coupable au bénéfice du doute de doo ko dégg. man fekk naa fekk naa benn jugement boo xam ne man mi ci salle bi xam naa ne waa ji day jaay yàmba. Hmm. ñun ñi ci xam nañ day jaay yàmba mais juge bi dafa douté ne ko acquitté naa la au bénéfice du doute. Hmm. moom la ñuy wax ci droit le. doute dafa douté bu doutee rek yow yéen yow bu doutee mucc nga. fekk naa procès viol certificat médical deux signatures xam nga li may wax fii ci deux casiers procureur deux signatures mu rëcc loo waaj ki ki ki ki ki ki visite ndaw si. ak ki signé du benn. Hmm. d'accord looloo rëcculoo waa ji laa la wax ca la avocat yi pour ndool avocat yi du ñu xeeb dara dara dara dara ay ni duñ ko xeeb. waaw loolu nag faaw faaw loolu ñu wax ko nit ñi seen bopp yi ñu dugg ci moo gën ñuy asarne wu ci benn jigéen. dëgg la jigéen laa faral nag waaye juge bi nag bu gisee ne sa waay ndaw si téye ko fi amul ma benn njariñ. Hmm. ndax deful dara. vraiment nag bu ko fa téye amel na ko àq nag. alors euh, Serigne bu ñu xoolee nii yoon di doxee. est-ce que waroon na am lieu à ce que nit ñi di acharné wu sur la liberté provisoire de Nabou Leye surtout bu ñu xamee yoon ni muy doxee comme ni ko Nguer expliqué tout à l'heure bu fekkente ne doute am na wala jortu nañ ne peut-être euh, am na lu ñuy dute wala njortu nañ ne laale woo si dara ñu bàyyi la nga dem ñibbi sa kër dontele kaso exception la est-ce que jaroon na acharnement bu ñuy teg ci kawam surtout bu fekkente ne juge d'instruction bi dafay instruire à charge et à décharge. xam nga Sénégal mooy li rek dafa bëri ñoo xamante ni jàpp nañ lu musul am rek bu amee. oui du jaadu. dëgg la nag ci sa ci circonstance yu bëri gisaguñ comme la cas de Nabou mhm. ñu gis ñu accorder nit une liberté provisoire sans ñu déglu ko en réalité ci fond dossier bi. loolu même bu musul am bu amee tey cela ne veut pas dire que juge bi li mu def deful deful lu dul yoon. ok loolu loolu loolu xam naa ngeen moom la doon développé sànq. je totalement d' accord. maanaam dara tënkul juge bi. non dara tënku ko parce que xam nga maître maître Khoureychi Ba. donte on reconnaît vraiment sa pertinence son savoir-faire. Mm. sur le waaye professionnalisme moom lépp en hmm. matière de droit. te puis évoqué na ay cause euh, naqarlu mbir mi ne mu demee. mais tamit ñu jël décision boobu ce sont ce son véritablement des hommes expérimentés en matière de droit. yi xam lañuy ñuy def. Hmm. maintenant nag. concernant nabu Leye coow li toppoon na ko nag bi mbir mi amee parce que euh, dafa bëri ay éléments yoo xamante ni moo taxoon Sénégal yu bëree bëri. soupçonné ne loxoom mën na bañ a génn ci la nga xamante ni dafa ñeel faatu Aziz Dabala ak keneen waali hmm. waaw donc loolu Sénégal yu bëri jàpp nañ ñi dem nañ ba à un moment donné gëm nañ ko. Hmm. parce que yi lañ ci doon jot a dégg nangam ak nangam ñi mu doon jokkalanteel ñoom ñëpp ñu jàppaleen ay complices. moom mu am yenn relation yi ak moom proximité yi ak ñooñu tam surtout ci ay téléphone ak yooyu. Mhm. loolu daal am na doute bu mu kii woon Sénégalais yu bëri mais ba tey. cela ne veut pas dire que mi ngi ci biir moo def wala defut parce que ka def ak ka defut yoon dina ko décider parce que même liberté provisoire bi ñu ko accordeel sànq sax ñu ngi wax ni c'est une liberté provisoire fragile. Mhm. boo xamante ni dëgërut maanaam dinañ ko dinañ ko sax du yàgg. pour hmm. déglu ko en réalité ci li nga xam ne ni que moom mooy. en tout cas loolu dossier bi dinañ ko dégluwaat du yàgg. Hmm. Hmm. voilà donc liberté provisoire la euh, démb gis naa famille Aziz Dabala bi tamit aussi génn nañ ay rakkam ak ay nitam ak ay proches. di bi ñu annoncé rek automatiquement mbir mi commencé nañ dajali ko këram. kër kër kër xarit yi kër yaayam. def nañ point de presse ñoom tamit jusque là ils n'ont pas compris lan moom motiver cette liberté d'expression cette liberté provisoire là la ko motiver ñoom xamuñu ko. Hmm. en tout cas daal c'est un dossier sensible dossier bu doy waar la parce que nabu Leye boo gisee Sénégal yu bëree bëri incriminé ko c'est parce que tout simplement proximité bi mu amoon ak Aziz Dabala. absolument. Hmm? Mhm. proximité bi la rek waaw mais cela rek lu may wax rek mooy ne veut pas dire que. moo def attendons de voir waru li nga xamante ne moom la ko yoon. may aussi la suite des événements. parce que tamit yuuxu tam ëllëg mën na xëy fu mu fu ñu ko foogewut yoon mi yor cëgal guy gi. te lu ñu mën a waxal Sénégal on a véritablement une police scientifique boo xamante ni ci jamono yi def na liggéey bu extraordinaire salué par tous les Sénégalais. et on a des magistrats aussi yoo xamante ni ci wàllum yoon. Hmm. ci sous région bi. kenn du leen ko jàngal. exactement même boo demee sax ci institut yu gën a mag université yu gën a mag. da nga fay fekk ay doomu Sénégal yuy jàngale wàllum droit foofu. kon xarañte bi ak expérience bi savoir faire bi mi ngi ci ñoom. Hmm. kon nag ce qu'on attend mooy que la justice soit faite. Hmm. bu dee moo def ñu jàpp ko bu dee defut nag am na droit wax dëgg yàlla. dellu si njabootam. dellu si activité am sa mu nekkoon. léegi nag hmm. il faut que sénégalais yi comprendre ko noonu. il faut que sénégalais yi comprendre ko noonu et en plus yoon moo war a kan moo def ak kan moo deful. tey itam ñoom ñoo yor li nga xamante ne moo di dossier di enquête dafay laaj rek ku si nekk fa nga féetee moo xam muy njabootu Aziz Dabala parce que quoi qu'on puisse dire aussi dañu ñàkk te ñàkk dafa métti mais am confiance ci justice bi nga xamante ne yor na dossier bi di ko doxal mais tamit aussi war a mën a xam ne képp kuñ ci tudd bu ne laale woo si wala nga war a mérité am lii di liberté provisoire surtout que tamit nga am ay avocats yu lay layal loolee yoon dala koy may mu nekk sa droit bi gën bi bi absolu donc nañ ci ànd ak tey wóolu yoon bàyyi yoon mu doxalee li nga te ne moo di liggéeyam Abdou Nguer amoon naa mbégte ànd ak yow ci émission jërëjëf kontaan naa di ñaanal ñëpp jàmm sëriñ moom toog na fi sosal ma ba doyal jërë ngeen jëf Pastef si nag mu ngi nii ni leen Seex Yirim tuddee loolee leen naqari. nu leen si.